وإليك يجى أمر كله لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم السلطان وكرم وجهك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رديت لك الحمد بعد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد رسوله المصطفى الذي أعطي جوامع الكلم والكرائم والحكم والرسول الصادق اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تسع بالعين بالنظر أو سمي الأذن بالخبر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 di wa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daiman abada alhamdulilahi kasiran alhamdulilahi ala kulli xaalin mooy ne ñu ngi sant yàlla sant bu amut app amut day waaye di julli si yonent bi sallallahu ak waa kiram ak saxaabaami ak képp koo xam yaa ngi topp sunna bi yawmal qiyaama di ñaan yàlla waaye yàlla ñu jaama indee ko fanaanoo ko yàlla muy jaamal yàlla ñu defal jaama yokk ñu sutura yokk ñu kata ñi feebar nekk ci kër gi nekk ci lopitaan bi képp ku yëg jàngoro yàlla na yàlla saafara yàlla yàlla kati yàlla yàlla fukka sa bopp yàlla yàlla suran buggee bu wàllu afiya yàlla ñu yàlla boole may afiya yàlla ñu yàlla boy may afiya yàlla ñu yàlla boy may afiya waaye julliti julliti àllaaxira yàlla yërëm leen yàlla yaatal seen baameel <clears throat> yàlla def seen baameel mu nekk rawdatu min riyaadil janna yàlla dalal jannatu firdaws ma allazi anama allahu alayhim min annabiyiina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa ulaika rafiqa waaye njaboot bi yàlla sàmmal leen yàlla aar leen laxale fi yaa egatu leen si yoon siraatal mustaqim yàlla mucc leen si fitna ak musiba ak balaa seytaan yàlla warsagal leen xam-xam warsagal leen liggéey warsagal leen àndandoor yu baax waaye jigéen yàlla sàmmal leen aar leen yàlla defal ñu xéwale àdduna xéwale allah mucc safara mbokk ju duñaa fi si daaray muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngalekat moo boobu ba léegi ñu continuer waxtaan yi nga xam ne commencé nañ ko mooy diggante jaam bi ak boromam ak diggante jaam bi ak moromi jaamam muy loo xam ne rek loolu mooy dunda bi nga xam ne mooy dunda bi ñu war a dunda si kaw suuf mooy ne suñ diggante suñ borom li ñu war ñu def ko rafetal ko suñ rafetale suñ diggante seen suñ borom rek suñ diggante doomi aadama tamit dafay daal di rafet ndik loolu dafay yokk sa ragal yàlla waaye daf laa gën a jege loo sa borom subhanahu wa taala loo tax indi leen xadis boo xam ne xadis yi eh, ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne xadis kutsi la ñu ne ko isma chita fa innaka mayitun waaw ne ko yow doomi adama bi dunda lu la neex waaw dunda moom dunda lu la neex waaw waaye nag bisa ngay ñëw sa tur sax dafay wecceku sa tur duñ la ko oyeeti néew bi kañ lañ ko jullee néew bi kañ lañ ko jébal boromam loolu rek ngay dégg waaw tur bi dafay ceeñ duñ tuddaat sa tur mu ne nag loo mën a dunda si kaw suuf nag dunda ko dunda dafay lu la neex waaye nag li tax yàlla indi si kaw suuf mooy nga jaamu ko de waaye bu ne ngay def lu la neex man faalewu ma lu ma neex ma def waaw mu ne nag ich ma chita waaw lu ne lu la neex fa innaka mayitun dee dina ñëw de waaw du jaas mukk yàlla ne kullu nafsin zaikatul mawt waaw bakkan du jaas mu nag man chita soopal ku la nee nag ndik soppante wax nañ ko si hadis bi passé rajulaani tahabba fillahi ijtimaan wa tafarruqa ndik soppante mbokk jullit yi na nekkate yàlla tax bugante na nekkate yàlla tax ànda na nekkate yàlla tax waaye nag demay ànda nit wala damay soppani wala dama buggani pour intérêt loo xam ne mbir àdduna la du mujj mukk du mujj mukk waaye gis ñaar ñu nga xam ne dañ yàlla tax ñaar ñu dañ buggante yàlla si si waxante dëgga ak jëflante si dëgga ñooñu bokk si ñi nga xam ne yàlla na leen kiral bés bu xam ne kër du fa am tàngoor bu tar metti boppi nit ñi nga gis ay yuuri di bax nga gis ñooñu yàlla kiral leen tirangal leen foofu ndig leen ànd bi àndoon yàlla tax ñu ànd soppante te yàlla tax bugante te yàlla tax mu ne nag ahbib man soppar ku la ne fa innaka mu faariquhu waaye ba sa ngay ñëw di ngeen tàggaloo de idem mu dem bàyyi la fi wala nga bàyyi ko fi waaw ak aada bi du mu yàgga yàgga yàgga kenn dina bàyyi moromam dem waaw mu ne wamal ma chita fa innaka mujziun bihi ah booy jëf nag jëfal lu la ne tamit li defal lu la ne imal ma chita lu la ne nga def ko def ko waaye nag bu dee lu baax la ne la ko fay bu dee safaan ba boo tuubu tamit nañ la ko fay bon lii mooy dundinu doomi aadama dundinu doomi aadama munta paase si ñette yi nga xam ne moom la hadis bi wax dundal lu la neex waaw nga xam ne li nga xam ne du jaas mukk mu ne mu ngi ñëw sa kanam de mooy dee waaw waaye tamit ak noo soppa soppa ndeya baay jabar doom besoon di ngeen tàggatoo waaw ànda bi dafa am na fu moo em waaye tamit sa jëf mu ne dafa lu la neex waxa lu la neex demal fu la ne waaw kenn mënu ma faale wu ma kenn yëguma kenn lu ma neex laay def lu ma neex laay wax kañ mu ne nag jëf yooju ah fay baa ngay ñëw de yàlla subhaanahu wa taala wax si alquran ne si suratu zilzal mu ne wa man yaamal misqaala zaratin xayran yara waaw jëf ji moom num tuuti tuuti mu nekk lu baax rek yàlla mu ne naa la ko fay waaye tamit safaan bi tamit wa man yaamal misqaala zaratin charran yara naka si tamit bakar bi ngay xeb moo ñu ne nañ leen di tuub mbokk julit yi nañ leen di tuub suba ak ngoon guddi guddi ak pecc di bul buñ xeb bakar ah li lu ndaw la dedet xamul man bakar mo la duggal safara mbokk julit yi te bakar bu ndaw nga xeb elek allahira mo la yagal fofu bon nañ ko tuub bala allahira nañ ko jégalu bala allahira xadis bu am solo ngi ni mbokk julit yi bi ma sha allah waaw bon julit bi diggante ma boromam waxtu bu nekk daf ko war a di fàttaliku borom ndi si laa am xel bu dal yàlla ne ala bi zikrillahi tatma innal qulub waaye nag fàtte yàlla subhanallah yàlla ñu yàlla musal si seytaane boobu seytaane bi xam ne daf ñu fàttaloo yàlla yàlla ñu si yàlla musal mbokk jullit yi li sa diggante sa borom wallahi su la taxee rek sa diggante uh, doomi aadama yi yàlla moo lay tegatal doomi aadama yi ñu buggal la sa diggante yaa ñoom ñu tax ndig doo am xooli añaan doo am xooli siis doo am xooli di fexeel ni kilo lu bon déedéet parce que yow da nga gëm yàlla ragal yàlla yàlla setal na sa xool sa xol a ngi waaye léegi-léegi nga gis ni ko xam ne du jaamu yàlla mu ne ah man suma xool dafa rafet man du may julli du may or waaye xol kooku naafeexa yàlla ñu yàlla mos a si loolu loolu naa fi xalaat gis ko ku set mooy ki nekk si yàlla santaane nga xam ne nag bàyyi xel axam diggante ba doomi aadama yi di xam ne xam moom lu am la am na yoo xam ne sax yàlla du ko bàyyi bi àllaaxira fii la la koo fayee fii nga koo gisee li ngay toroxal doomi adama yi fii la la ko yàlla di fayee bon mbokki jullit yi delluwaat si xadis bi rek nañ rafetal suñu diggante suñu borom su ko defee suñ diggante doomi aadama yi mun a rafet kon yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla ñu yàlla xiir si boppam yàlla ñu yàlla teg si yoon siratul mustaqim yàlla subhaana taala nanguñ suñ jaamu yi jégal ñu suñ baakaar yi ñu xam ak ñu xamut yi si biir ak si biti yu ndaw yi ak yu mag yi yàlla def ñu rabbana atina fi dunia xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaaba annaar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira walhamdulillahi rabbil alamin amin amin amin